ñaareelu xaaj bi ci ñaari xaaj yi te jamono jooju ndaw yi def nañu ay kéemaan yu bare nit ñi di leen indil ay ñu feebar ak ñu rab jàpp ngir ñu faj leen am na ñu feebar ñu doon tëdd ci mbedd yi yaakaar ne takku piyeer bu jaaree seen kaw dinañu wér te noonu la daan amee sëriñ bu mag bi ak sadduseen ya añaan ci loolu noonu ñu jàpp ndaw yi tëj leen kaso guddi googu am malaaka borom bi ñëw ubi bunt bi mu wax leen ñu dellu ci kër yàlla ga te yëgle xabaar bu baax bi ca ëllëg sa sëriñ bu mag bi ne ñu indi ndaw yi ngir ñu àtte leen wattukat yi dellu si ne fekk ñu kenn ci kaso ba ñépp waaru te am ku seen ndaw ya boobu ñu ngi doon jàngal nit ñi te ëttu kër yàlla ga noonu ñu jëli ndaw yi indi leen ci kanamu sëriñ sa sëriñ bu mag bi wax leen ne tere woon nañu leen ñuy wax ci mbirum yéesu waaye dañu dëgër bopp ndaw ya tontu ko déggal yàlla moo gën déggal nit yàllay sunuy maam dekkal na yéesu mi ngeen boomoon ci wek ko ca bant ba te yàlla yëkkati na ko ci ndeyjooram mu nekk buur ak musalkat ngir may ban israel rëccu ba mu baal leen seeni bàkkaar seede nañu loolu ñun ak xel mu sel mi yàlla may ñi koy déggal jëf ya saar juróom aaya ñaar fukk juróom ñeent ba aaya fanweer ak ñaar sëriñ ya daldi mer lool bëgg leen a rey kenn ci ñoom ne leen bu ñu leen rey mu ne leen bu dee li ndaw yi di def ci ñoom la jóge du sotti waaye bu dee ci yàlla la jóge kenn mënul tere mu sotti loolu jéem a xeex ak yàlla la noonu kenn reyul ndaw ya waaye ñu dóor leen ay yar te tere leen ñuy wax ci mbirum yeesu ndaw ya jóge ca kuréelu atekat ya ñu bég ci li ñu yelloo ñu fitnaal leen ndax yàlla bés bu nekk ñuy wey ci di wax ci mbirum yéesu ci biir kër yàlla ga ak ci biir kër yi léegi ma laaj leen ñaar lu tax sëriñ si tëj ndaw yi kaso ndaw yi doon nañu jàngale ci mbirum yéesu tey def ay kéemaan yu bare sëriñ si dañu añaanoon te bëgguñu woon nit ñi topp yéesu ñett ndax loolu taxoon na ndaw yi bay seen waare déedéet am malaaka na leen kaso ñu dellu ci kër yàlla ga di waare ñeent bi leen sëriñ si laajee lu tax ñuy waaree ba tey lan lañu tontu tontu nañu leen ne lañuy déggal waaye du juróom lan la sëriñ si def ndaw yi door nañu leen ay yar ba noppi tere leen ñu wax ci mbirum yéesu juróom lan la ndaw yi def weyoon nañu di jàngale ca kër yàlla ga ak ca kër ya bégoon nañu ci li ñu am metit ngir turu yàlla ndax li ñu fitnaal ndaw yi tax na ñu ñàkk doole déedéet yàlla jaare na ci def liggéeyam bi ñu gisee liggéeyu yàlla loolu yokk na seen ngëm. juróom ndax yàlla bëgg na ñu siiwal xabaar bu baax bi maanaam mucc gi. waaw yàlla sant nañu ñu dem sàkk ay taalibe Kirist yàlla bëgg na ñépp mucc te kenn bañ a sànku. juróom-ñeent ci seen xalaat lan lañu war a def bu ñu nu finnaalee danoo war a màggal yàlla ndaxte boole nanu ci am metit ngir moom waruñu noppee déggal yàlla war nañu xaar yàlla mu saafara li nu jànkonteel fii la nettali bi yem